واتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير kàttanul yàlla di ziar mbokk yëpp di di ñaan yàlla subhanahu mu wàccee ci sunu ci sunu yal na ko yàlla def nawet bu barkeel nawet bu bari te nawet bu zer loolu yal na ko yàlla def ci barkeel United States Allah sa El Hadj Ibrahima Sakho Arabi uh, bi mm-hmm. ci tafsir ci xam-xam bi wax dëgg yàlla mm-hmm. nga yàlla def ko mu xam li muy jà ak ak lay di la ndax bu nga mais mhm. kon baat bi bu ñu ko defe naa nekk sunu ci alquran nekk sunu ci ci lépp at bu jot fàttali kilifa gu màgg nitu yàlla nitu ñu ko wax ahlu nekk xam na El Hadj Ibrahima ni mu meloon ci alquran yàlla nañu yàlla taas ci barkeem kon sëriñ يا عبد العزيز نعم سيدنا sallallahu alayhi wa man tabu مولى ابن allahu wa ala bihi amin ay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu xaaji tey fay Sayyid Abdul Aziz itam ñu ngi lay fay ci nuyoo di di di di ñu ngi seetaan waxtaan bi yëpp tey sunu waxtaan euh, ci alhaji Ibrahima Sakho ci la jëm mm-hmm. radiyallahu anhu nga xam ne moo am initiative julli gi ñuy tuddee salaatu tas euh, am ne ma dama la doon ma ne ko dama bëggoon nga may ñu ba ajuma bi ni tey ndax euh, salaatu xam su ko defee di ko joxe comme ni ko sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko El Hadji Ibrahima Sakho ak njëriñ su ko neexoon ko ne ko yàlla man pour nga fóot say waaye avant tasbix bi ma eh, mhm. sawar lool mhm. xaaji Ibrahima bu ñu woon macha allah moom da daan jël mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. la waaye nga ba ñu laajee Moustapha kan yàlla yi huwa mooma kon ndax ba ñuy wax ci ndeyam ak ña nga xam ne siise ak saaxo ndax à la Baye Sakho mokkal na alxuraan militaire mhm. waaye Baye mhm. waaw kii maa ngi lay taxaw di gàmbu ji ko koy xaaj Ibrahima xaaj Ibrahima dem kan waaye mm-hmm. euh, bu ñuy dafa doon ci asxaab yi ña ko topp waaye lan waaye teex moom ñëpp xamakuñu ko juddu fan la kon citoyen à part entière nga jàng dem na ba nga naan dafa dem ba kon ja ndax nii la daan firi bàyyi xam nga ci nag mhm. dangay mel ni ku bu la lil alam euh, euh, rama la waaw boo nga jël waaw moom ma xaaji am na muy mu ne mu ne alxuraan la mu ne mu ne firi ca jamono jo mu ne la laka fatxan mu kon xamal nit ñëw nag ca gannaaw ci ginnaaw si mu ne waaw mu ne dee xaaral ma shay'un inda Allahi mu ne waajaa mu ne fàttaliku ci lu ñëw ndimbal mhm. fatxo dafa mhm. ndax li nga mhm. baat bi lu ci nekk mu teg ko ci ko sax li nga mu ne ah, sama bopp waaye dégg gis nga saaxo la ko mooy ñaata tànt waaw Mm-hmm. waaw xalilullaah musafaa habit ci mu ne ana julli ci ko xam yaa bu alfa samanina a bu ala sajidin xabla faala mhm.

sos sunu sos jamono wala abaana bi nuuri yi a bay saaxo jëmu doon jiite tënj jumaa masul fanaan këram samedi. muy am na. vingt-trois ans. Mhm. ab dëgmal waaye lim euh, euh, ila anta subhanaka kuntu min az-zalimina subhanaka inni kuntu man inni kuntu subhanaka inni kuntu min az-zalimina man mhm. waaw toll. daaw ci xalaatam la ñu ñu ne ko aw mhm. maa ngi lay gël nii ne waaw soli xëy naa si xam nga ñaata aaya la Seydina Muhammad Mustafa ñu am ci Monsieur dañ min sha hasada ak juróomi puso mu ne dañ ilaa pas dañ min sha waswasil xanaasi puso suduri naasi ak fukki pour muy tafsir daan na am naa la am na dañu dund dund ni moom la wax ni bu mhm. ku koy xaji mhm. ma macha mhm. allah mil dafa ñu macha mu ne kii du doy ñoo ñu tudd kon ñi ndax po ngeen waaye yànte mhm. ndax bu ko sëñ tey mhm. Mhm. ana la relation waaye xam ndax jaafar indi na xadis yu jëm ci bari na ndax duma la jàppale léegi salli arba saga googu espèce jërëjëf ndax mbokk yaa ngi koy laaj dem ci ku yàlla mun boo naka nga koy doxal la ndax njariñ la rek ngee xoox relation ak El Ibrahima Sakho te wallaay julli gi ngeexoox ba jël ngeexoox tudde foofu li waaye doo tënge ci digg ndax maam Nang sama bis danaa ko fa wax mhm. mu ne bu ma ko defee bu ci àll rek moo fay teg mhm. bàyyi sax bu ne mhm. sallallahu alayhi na solo li xam kon def ndax yàlla mu ne lu lu incha allah. wa Afrique la bi zikri la mu ne nañu nañax nañax ñi ma di ñu ma dina tey ma ñax mu wëlbati bis غير يعلم ndax da ngay def